bon tey li war a doon rencontre bi euh, mooy que ni depuis euh, trois ans mën naa ne étudiant bi nga xamante ne bi dafa dëkk Touba ak Mbacké dafay souffrir ci ay problèmes yoo xamante ne bi dafa bari bari dale ko ci problème mu logement ba ci pédagogique mais surtout sax problème mu logement euh, mën nañoo jàpp ni depuis ñetti at yooyu yëpp képp koo xamante ne bi Touba nga dëkk wala Mbacké ñu orienté la université Cheikh Anta Diop de Dakar. yaa ngi jànkonteel ay problème yoo xamante ne bi jamono ji moom moo tax sax ba mu affecté sa ay notes yi nga xamante ne bi moom nga waroon a mën a normalement te que foofu ku ñu xamul aussi dégg nga ñu parce que dañuy accéléré ci domaine yi nga xamante ni ñoo fay nekk lenn rek moom mooy suñu problème mooy dëkkuwaay boo xamante ni bii tey étudiant bi bu jàngee ba wàcc dafay mën a dem teg fay bagage am dallu ba suba jot mu mën a demaat loolu moom moo nekk suñu principal souci et que ci kaw loolu dañoo amoon benn solution mooy que ni rédiger benn projet boo xamante ni bi ñu ngi ko tuddee projet d'acquisition de logement boo xam ne koy mettre la disposition des autorités religieuses politique et culturelle yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi présenté leen ko ngir lépp loo xamante ne war nañ cee mën a jàpp ci ngir ñu mën a am appartement wala ñu am fépp foo xamante ne dinañ fa mën a dugal étudiants yi nga xamante ne ñoo ngi Dakar ñu def ko. yaakaar naa ni amul benn maire bu nekk ci diggante ñaari communes yi boo xamante ne bii yëgoo problème bii nga xamante ne ñun ñoo koy dund j'ai dit amul benn maire boo ne bii doo nga taxaw ne yëguma ni kat yéen ngi doon dund lii. at yi ñu jàll yëpp même ñun ren la ñuy doog a suñu biroom mais at yi fi jàll yëpp. ñi nga xam ñoo ñu jiitu aussi ils avaient ce même problème là te à chaque fois seen première personne bi ñuy chercher refuge moom mooy ci ñaari maires yi voilà et que ñun euh, li ñu gën a yokk tax sax ñu ciy sonn en tant que des ndaw yoo xamante ni li ñu bëgg aussi jàppale suñu ay rak mooy que dañoo dégg rek waxu Serigne Mountakha bi nga xamante ne bii mi ngi ko waxoon ne dem leen ngeen jàngi am xam-xam ñëw liggéeyal sëñ bi ci biir dëkk bi loolu mooy li nga xamante ne à chaque fois suñ ko xalaatee dañuy gën am avantage dañuy gën am énergie dañuy gën am également motivation ngir rek mën a décrocher les plus grandes et les plus bonnes notes ngir ñëw mën a liggéeyal euh, sëñ bi ci biir dëkk bi waaye nag yaakaar naa ne effort ak énergie dafay ànd ak accompagnement bëgg nañ suñu xel ak suñu xol yëpp mu ngi ci loolu mais dëkkuwaay bi dafay jafe-jafe torop torop torop et que ñun ñu xamee département de Mbacké mu nekk ci euh, département yi gën a kawee ci Sénégal ñu ne deuxième ville démographique ñu ne ci biir département bi la nekk deuxième ville économique ci biir département bi la nekk mais boo demee université Cheikh Anta wala la ko wër amul benn apartement boo mën a teg sa loxo ne lii ñoom ñoo ko moom wala seen ay autorité dëkk ñoom ñoo leen ko jàppale au moment où da ngay gis yeneen euh, amicale locale yi seen maire jël leen ay trois appartement quatre wutale ay chambre bi université et je pense que loolu du ñoom ñoo ñu ko gën a mérité Touba aussi am na mérite boobu mbakki aussi am na mérite boobu.